jëwriñ yi nga xam ne ñoo ne ci kanam mbooloom euh, sëriñ Modou Faye bu ko tuddee sëriñ Babacar Dia sëriñ Soura Thiam ñoom ak sëriñ Buy soo séeréer yi. waaye li mu léegi. ñoom ñëpp ñu ngi leen di bu baax te di am mbégte bu baax mel na ñoom bu ñu leen tuddee rek tudd nañ mboolem ñu teew góor ak jigéen maa leen daw waaye rafetlu leen bu baax yi nga xam ne moo fi moo fi ji ci ñaari gay xam naa ne dafa dëgg la daan nañu daje ci ay daje yu mel nii ca kër Sëñ Tuubaa bi pël bi ba xëy na sax moom ni ma xàmmee moom xàmmee wu ko noonu maa ngi ciy jéggi bu baax waaye wax dëgg yàlla ak baaxam rek ak xëy na soññi jot naa ko rek jàppee kàddu soññi ci ci man defee ñu ngi koy sant bu baax itam tey ñaan li mu wax rek yàlla barkeel te doon loo xam ne itam luy nekk ci ñun la ci bokk ñun ñëpp la ci demal Sëñ Tuubaa kon nag eh, waa Touba Barcelone daal ak booleem gox yi nga xam ne ñooy taal ñu ngi leen di nuyu tey ñu am mbégte nag bu baax di daje ngeen fii ndax eh, dëgg la bi ñu àndee ak sëñ Mamour ñëw fii ci Trasa jotoon nañ faa def waxtaan waaye ginnaaw bi liggéey boobu jeexee itam man maa sàkku dellusiwaat fi ngir gën a yaatalaat liggéey bi gën a xam yi itam mbooloo ndax bari na ñoo xam ne xam nañ la dañ am ci yow yéene. léeg-léeg dina ñëw yow nuyu la nga nakk nakkal te loolu du du ma gënal ndax ma sañoon koo nuyu fi rek jaar ci sama sant ma jaar ci sama sant waaye ngeen ngeen ñu ci jéggal xam ne doomu aadama rek la te dañuy fàtte itam waaye loolu moom mooy li gën a tax ma ne naa naa fi del siwaat te su ma ñëwoon rek nag ni ma ko waxee sëñ bi rek ne ko bu ñëwoon rek dal bi di bokk njabootu sëriñ bi fekk leen fi ngeen njabootu sëriñ bi yéen itam ndax sëñ bi moom ñun ñëpp ay njabootam lañ njaboot yaakaar naa bi gën a nangu sax ci wàllu xol ak pas-pas euh, ndax ndax dañuy wax ne maanaam njaboot daal kat njaboot la njaboot boo xam ne njabootuk li ñuy wax géñam moom la ñuy wax wala du suul bi ak njaboot bi nga xam ne njabootuk xol la moom la ñuy wax wala du xal ku njëkk gi nga xam ne wala du suul la foofu yarisu almaal moom alal rek lay doon alal alal rek lay doon waaye ki nga xam ne nag euh, njabootu xol la. yéen suñu mm-hmm. xaal xaal la mooy li am solo mooy melo mm-hmm. ak jikko ak ak ak ak ak ak baati mm-hmm. moom lay doon ci ka nga xam ne moom moo ko jaboot kon ñun ñëpp jabootu Sëriñ Tuubaa lañ ci maanaamu yaatu moom maanaamu yaatu bi nga xam ne mooy nit ñëpp di ay taalibe di ay di ay di ay di ñoo xam ne dañ koy liggéeyal ndax mboolem ñi ko gënoon a jege ñëpp sax kenn ku nekk ñoom da ngaa ñoom jaayee surtout bu seen dara dañuy dégg da ngaa surtout ci kanamam jaayee mu lay digal la muy digal taalibe di la tere la muy tere taalibe mm-hmm. nga tàmbale ko ci ay rakkam maam maam Thierno borom daal moo fi Cheikh Seydou Moukhtar borom daawaat Daaru Salaam mm-hmm. maam yi sëñ Ousmane mi ma sàmm ñu ne mooy taal ba ci mag mag maam moo jaar borom Saam ñun ñëpp kenn ku ci nekk da ngaa ñëw joxe sa bopp suñu enquête suñu seet bàll ñu ñëpp kenn ku ñëw nga def ñëw nga def lu mel noonu doomam yi ñëw def loolu kon loolu rek mooy la am solo kon kon yéen ñëpp ñun ñëpp ñëwoon suñu doole kon ñu ngi leen di bu baax di am mbégte bu baax te daje yéen xam naa nag moom dañuy tënk rek kàddu yoo xam ne kàddu yu soññee lay doon du doon euh, ab conférence ab conférence moom nga leen day xaw a am lu laaj gëstu baag ak plan baag yooyu waaye comme ñëw nañ daal ci mbooloo moo xam ne mbooloo suñu tubaab la yaakaar sëriñ bi itam di ko liggéeyal suba ngoon bu dégg bëccëg euh, ni ko suñu saabaka ñu ñëw fi ngeen jàppee ñu ñoo xam ne ay jëwriñ lañ duñu seen suñuy seeni mbokki taalibe yi am na wàllu bu ñu leen féete ne itam bu ñu dajee war nañ ko feeñal ci waxtaan te mooy yaakaar bi ngeen am ci ñun ba bu ñu fi ñëwee ngeen teral ñu teg kaw te ci suuf di yëkkati ci i ñàkk di leen lew di ñu jox lu ñu wax rek ngeen ne eskay donte sax léeg-léeg sama classe bi mel ne man dana dana wax loo xam ne sax dana xaw a doy di jëge suñu loolu itam lu am solo waaye lii itam nag am na lu ñu war suñu diggante ak yéen naa koy faral di message suñu soxla doon wax sax maanaam mbokk yi bëgg nañu waxtaan ci yoonu géej gi waaye wax ne yoonu géej gi moom day wax ne boo ci duggoon rek ci waxtaan li nga bëgg wax sax boo wax rek dafa yaatu waaye nag mënees bi ci biir waxtaan bi léeg-léeg ñu ñu ciy jël ay ay misaal yoo xam ne day firndeel li ñuy wax nga xam ne xeetu bind lay doon ay ay ay leçon lay doon léegi mu nekk rek histoire bu ñuy relaat di ko nekk rek muy muy muy dem ñun ñu xool ndax li mu wax ne am na lu ñu war ñun ñi ñuy ay ay sëriñ suñu diggante ak yéen loola sëñ bi da ko firndeel ci tukki géej mooy bi mu bi euh, ci Guinée nga xam ne fa la njëkk escale comme que escale dafa am benn mbokkum jullit koo waaye ab jullit di ab saalum saalum euh, dégg na sëñ Ba la fi jaar bu ñëw nuyu ko ba noppi jox yëkkati hadiyaam jox daal ko ne damaa bëgg rek dama damaa dégg ne ñu ngi la fi jaarale di la yóbbu Gabon sëñ bi nee na ci laa déggee turu Gabon fekkoon moo xam Gabon waaye dama ci laa xamee ne Gabon la ñu jëlee dama ko xamu ko woon mais du ko waxee la ne Gabon euh, maanaam Gabon la ñu jëlee mais nag daal ma ne bëgg nag di la ñëw siyaare la rek jox la sama addiya yi ne bëgg na nga dégg ko sëñ bi nee na ma ne jël addiya yi nga ko ba daal koy dégg nag dama ko dégg it mooy li ñu leen di dégg yéen ñëpp rek te tàmbalee ci sama bopp mooy بعد لا إله إلا الله محمد رسول الله sallallahu alayhi wa sallam day loo xam ne lépp luñ mën a wax ci lu baax lépp luñ mën a jëf ci lu baax génn baat boobu génn ko ndax sëñ bi bu ko joxee baat la dafa ne baat bi nag dama laa bëgg jox naa la ko waaye dama bëgg wax la li am tëkkal la laa ilaha illallah muhammadu rasulullah ñaari xaaj bii ci yàlla la jëm bii ci yonent bi daal bi jëm ci yàlla mooy suñu borom dafa wane ne kenn amul kenn koo xam ne warees na laa jaamu te jaamu ko di jur njëriñ ñàkk gaa jaamu di jur lor ku dul yàlla suñu borom tabaraka wa taala daanaka ne nag yàlla moomu nag mooy ki mat a jaamu ndax boo dee jaamu keneen wala ngay jaamu leneen dul yàlla jant gi ñëw maanaam jant dana fenk bis a ngi ñëw jant fenk nga xam ne yàlla rek suñu borom yàlla rek dafa jaam waxtu woowu mooy kañ mooy waxtu risque ci sukuraat tëdd ci law sukuraat ak ruuxam tàmbali di génn sëriñ Sam ba yàlla kàlla doon lay daan ko misaal misaal mu raglu te leer te loolu nag moom nag alquran waxe falaw zalika balagat alxulquma wa antum xiina idin tanzurun wa naxnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun wax na ko it kalla ida balagat altaraqi wa qila marra wa danna annahu firaq والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق. سوى بقى لا صدق ولا صدق ولكن كذب وتوكل يوم ne waxtu woo xamee ne ruu gi mi ngi tàmbali génn tàmbali ci baaraam bii baaraamu tànk bi di yéeg wut si ci kaw nit ki di jàkkaarloo boo leen lu jëfoon ci àddina su waxtu woowu lu ruu gi gaaw gaaw gaaw lu gi gaaw gaaw film moom dana déroulé ci kanamam ba mu ba mu juddoo yóoxu doon doon gone doon ab liir ba waxtu woowu muy faatu di génn àddina lépp lu mu jëfoon baa lu façon baa lu waxoon day day dafay gis mel ni vidéo bu ko tegal muy maanaam déroulé muy muy muy muy jàkkaarloo moom suñ borom nag foofu euh, secret yi ba nekk mi waaye nee su su jaam bi tolloo foofu su ko fekkoon mu doon keneen wala mu doon jaamu leneen tudd yàlla ba toll foofu nee na fa lay xam ne yàlla rek ma doon jaam yàlla rek ma doon jaam euh, loolu si si am daal misaal nañu ko ci bu waxee ne ñaar bu ñu àndee kii di jaamu yàlla kii di jaamu leneen wala keneen tudd yàlla kii jaamu yàlla na ko xaar fa yàlla na xaar ki ki ki ko fa bàyyi di jaamu keneen baa rek bis dana ñëw koo da doon jaamu dul yàlla wala dul am mu soxla ànd ak lam doon jaamu te ci yàlla képp ko mën a amee mu ñëw fekk ci yàlla tuuti kon nee na ku nekk yoon yàlla sax fa def dafa dara jëlee ku nekk yoon yàlla sax fa def dafa dara jëlee Sëriñ Tuubaa moom la jàngalee baatu laa ilaaha illallaah kon mooy rek jaamu yàlla ci tawhiid ndax yoon mooy wal islaamu bil fiqhi wal ihsaanu bi tasawuf loolu la doon doon gouverneur général mm-hmm. ba mu ko laajee lan mooy piliers yi nga xam ne ñoo ŋànk yoonu murid mm-hmm. te lu mag la mm-hmm. ndax ñu bari jàpp ne bu ñëwee yoonu murid ci ci ñi nga xam ne dañuy jur di compte rek ak ñi gisee yoon wi di ko xool beneen bët jàpp ne bu ñëwee yoonu murid rek dafay loo xam ne dafa génn islam ak nangam waaye suñ moom ko leer dafa ne yoonu murid cosaan la te ak loolu doon topp tubaab gouverneur ko laajee da ko mu tontu ko ko yoonu ñetti ponk ñoo ko ŋànk ñetti keno ñoo ko téye benn bi mooy gëm yàlla ci taw xëy ci wéetal yàlla bi nga des mooy nangoo jaamu yàlla ci di ko pratiquer islam al fiqhu al al al al islaamu bil fiqh mooy ngay jaamu yàlla ci di dégg la diine fekk da ngay jàng nag ba dañu réer kon comme ni ko waxee léegi mu kàllaf moo xam ne ñi ngi jaamu yàlla te xamul la ci yàlla mi ngi liggéey si tubaab xamul nu mu koy defee ak neen e la ma nekk ci téere yi ñuy wax tasawuf si racine de commissar ne kii julli julli bu rafet di rukoor koy mat di sujjóot sujjóot yu mat di def lépp jàpp-jàpp mu sell te sañ cangaay waaye soo ko laajee luy farata ak sunna xamu lu muy wax afaalu xiina annaasu yafaaluuna kama raaytu annaasu yaabuduuna rek gis naa ni ñuy def rek ma waaye man xamu ci dara nee na kooku imaam aw fii nee na la muy jëf bi ca am tuyaaba te mbugal ëllëg moo ko ciy fekk بيقول يا احنا شفنا انه الخف الاليات واحد واحده واحده كنا ما نسيت بقى يلا ارام لا تي ييب مكلف مو مانا دون بي جيف بيب جيف توك يلا تي خمو لي يلا اتي كون بوي جام يلا خمال لي لي يلا ديال تي فراتا لي تي سنه لي تي لم صوف لي تي نانغ سيد لن نكون الاسلام بالفقه موي غي جام يلا تي فقه تي جان دي بو ديف ñettel bi mooy al ihsan bi tasawuf mooy nag ak taalibi fexe ba meloo meloo boo xam ne ki la gis sopp fexe bay jaamu yàlla di ko solo mel ne yaa ngi gis yàlla soo amul foofu nga nga xam nga gëm ne yàlla ngi gis ñett yooyu ñoo ngànk ne mooy al iman bi tawxid wal islaamu bi fiqri wal ixsaanu bi tasawuf moo tax bi bi bi mu ko laajee ne ko ñan ngay murid yi nag tubaab bi ne ko ñan ngay murid yi mu ne ko koy loolu comme tontu naa la xamal la maanaam keneen yi ci keneen yooyu ci ngay jëlee tur yi mooy al muminuuna al muslimuuna al muxsinuun kon mooy ci dégg Sëñ Tuubaa lu yaatu la tënkuwul ci benn béréb tënkuwul ci aw tur tënkuwul ci askan tënkuwul ci mbokk dafa yaatu dafa am universalité moo tax mu ne ko mooy li gëm yàlla tey jaamu yàlla tey sellal mu ne ko fan la am murid ne mu ne ko fépp foo xam ne mu'min a nga fa muslima nga fa muhsin a nga fa foofa réewu murid gis nga loolu murid yi fépp àdduna lépp seen réew léegi nag ci biir nag baatu laa ilaaha illallaah boobu nag sëriñ bi doon tontu doon tontu sànni sànni boobu bi mu ko xamalee xaaj boobu ba àggal nga xam ne laa ilaaha illallaah xaaj bi njëkk mooy jaamu yàlla te di ko wéetal te xam ne yàlla rek mën a jaam Muhammadu mooy wa salaamu alayhi mooy jaamu yàlla li ngay def nga def ko ci tënku ci sunna mooy bul xool nu mu la neexee ak nu mu la jubóo rek nga jaamu yàlla waaye xoolal sallallahu alayhi wa sallam bëggee ku jaamu yàlla ci jëf jë ca yëngu yëpp ca dalu bi te lépp nga jaamoon yàlla. Mhm. daanaka nag su fekkee yaa ngi jaamu yàlla te te tegoo ko ci sunna xanaa nu mu la neexee mbaa nu mu dugal sa bakkan mbaa sa xel jant la fenk nga xam ne rasulullah la yàlla yéen ci jàng. Mhm. te mooy waxtu woowu nga tolloo ci sukkuraat rek. Mhm. daanaka nag ak demal gis nga li ma li ma ñor ci ci histoire bi mooy bi mu ko waxee loolu ba àggal rek bi muy nekk li nag histoire bi ak ak état yi ak jaar-jaar yi marché ko dafa tudd baatu hadiya askan la ci bopp. hadiyati safar لدى كناكر أكبر عن الله لدى كناكر من كل جانب كل المناكر بما في بسم الله دائما أقول لك لأن سيد باكو في البقو باكو الهدية بقوة وقت لأن الجملة هدية جوكو سالو سالو مجوك ويخالص بعلم بغيره waaye moom xel yi jëm jox saalu saalu bi lay wax mooy baat bi ñu ko dégg laa ilaha illallah muhammad rasulullah jooju nee na moom addiye la joo mooy xeet yi jim askanale boppam moom te mooy jim jox saabi saabi kon li ma bëgg a foog daal mooy yéen bu ngeen di yëkkati xeet yi di ñu jox ngir jëmmi Sëriñ Tuubaa ñu itam war nañoo am addiya yi ngeen di jox dégg nga loolu loolu loolu mooy mooy mooy mooy mooy maanaam loolu mooy plus xam nga ko ci dal rek ndax day daa xel bi daa sowaat su ko defee kon lii nag am am na lu ñuy wax mooy kon kàddu yi kàddu yi nag soññee la soññee bi maa ngi ko tàmbalee ci maa ngi koy ñu tàmbalee ci ñu xam ne li sëñ bi wax léegi sëñ Moussa li ñu booleeg sëñ Tuubaa bi maanaam lu ñu wër mooy nit ñi kenn ku ci nekk ñun bi nga bi nga jébbaloo ko doon ko mooy boobu da nga amoon sa liberté totale dañuy wax ixtiyaar da nga amoon sa tànn. tànn boobu rek même ki doon a gudd jullit sax am na ko alxam bu wax laa ikraha fi diin mooy ci nekk bu jullit kenn du ko fas ci diin doon a gudd jullit kenn amul droit ñu fas la tey tuub waaye bis boo demee nag ba ñëw di ashhadu an laa ilaaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah benn wala nga ñëw di aslamtu nafsi ci kanamu sëriñ bu mat sëriñ ah su boobaa nag wóorul sa bopp su boobaa nag jël nga sa ixtiyaar sa iraada tàbbal ko ci tànn suñ borom tànn ko ci xeyaar suñ borom maanaam sa suwaa daal jaay nga ko ci tànn ci suwaa yàlla ak ak sëriñ sa baat jox sëriñ kon boobu sa moo tax al muridu foofu sëñ Tuubaa ne al muridu man laa yamliku shay wala yamlikuhu shay murid mooy ki nga xam ne bi mu xasee joxe dara alal bi sax moomatoo sa alal say doom say soxna sa temps bi ngay liggéeyee sa sa lépp jaay nga ko jox sëriñ ma ne Seydou Lagne woon mooy jaay alalam jaay jëmmam bakkanam te da daal dina nit lu mu te yaakaar ne ci njëg moomu ko nit ñi kenn ku ci nekk li nga yor di ko jaay boo xasee kay ki ñu waxaale yow ba ba jox la njëg ba nga jox ko sañatoo ko am amadoo ci ngeen xàq solo maanaam li ci soxla wala nga ci jël noonu la bakkan yi mel ak alal yi kon comme nañoo jaaree Sëriñ Tuubaa kon contrat la contrat boobu nag fii ak ñu ngi nooyi nooyi nooyi bi yëge ko wàcc duñu wàcc së sëñ Tuubaa së së sëñ Tuubaa ko dana woon sëriñ bi kat dinaa buy liggéeyal Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mës ta wàcce boppam kon lii dafa la nga xam ne dañu wàcc suñu bopp ndax dafa xam ne man zanna ni gayra gayra xadimil Mustafa man zanna ni gayra xadimil Mustafa fa inna ni ahdimuhu bi Mustafa daal di axdimuhu ila duxulil janna mooy ñàkk a wàcce boppam daal di xaraay nga ne man de moom laa na mu ko bëgg ak na ba keroog may a tudd ak sëñ wàccewul boppam kon ñun waruñoo wàcc comme waruñoo wàcc nag waxtu wu nekk war nañ fu ñu dégg liggéey Sëriñ Tuubaa ak lu ñuy may ngërëmal Sëriñ Tuubaa te liggéey Sëriñ Tuubaa dafa neex ci ku ko xam te ne ci sëñ bi soxna Seydou Xaar nee na kaay yu ànd liggéey Sëriñ Tuubaa mooy kaay ma mu wax ne maam Cheikh Ibrahima Fall daana wax ne liggéey Sëriñ Tuubaa mi ngi mel ne bëri ko fu ñu teg ci kaw muy bëri di wàcc boo ca tegee sa loxo mu wàcc boo ci tegul sa loxo mu wàcc bu dee tey ngaa teg sa loxo mu wàcc sag ba da nga sag bi mel na yow bokk nit ñi ko wàcc fekk doo ci dara loolu lépp bu ñu ay misaal yoo xam ne bokk na li Sëñ Tuubaa wax nag di wax ñëpp ci ku koy liggéeyam lépp dafa yàlla day def bokk na ci njëgalu yàlla bokk na ci mucc ci lépp luy lor ak nag alaaka bokk na ci am wërsëg alal wax na ko ba day ci madame Posé طبعا وكل من خدمني او زار فمدني وقد وازار وكل من احب لي او مال الي فارزقه هدى او مال كيف بقى حمد لي جيل من غير يالله مسلمو جيكلو كو جاندي جيم تي مان تي سيار من غير يالله بو بغما ماي كو اندي تي ماي فال كون لي جيل سيتوا فرق لا تي نيم ني موريد كو خاص داير رك فرق لا تي تي ام بي سو اك لا تي فيمني كو كوي mënatoo def xëy te te te te sellal na wax nag def ko ci ak dëgg ndax ndax moom dañoo misaal ni muy liggéey sallallahu alayhi wasallam fi ni mu ko liggéeyee dafa tax mu am li mu am bu demee ci xataa ba bi day wax ne koo xam ne da ngaa jóg di liggéey rasulullah te boole ci dëggu ak sellal ñaar yooyu ci am solo te boole ci dëggu ak sellal bul ragal mbindeef bul yaakaar mbindeef te xamal ne yàlla moo lay aar moo lay musal moo lay may ومن تكن برسول الله خدمته مصاحب الصدق والاخلاص والحسد فلا يخاف ولا يدل ولا زمن اذ الوقايه تغنيه عن الابتلاء. تلور من كابو من كتاب بنجيب في خدمه بوب في ليغي بوب موي موي كتاب بيغا خامنا دا فا تولو جي دي نييكا اك ميليتا ملني ليغي كات يمان ليغا خامنا نيمن خامون في استوار الاسلام موي كوم ملني كعب ابن زهير حسان بن ثابت Anas ibn Malik nga xam ne ñooñu ay saxaaba la ñoo xam ne ñenn ñi ay waykat lañu woon daan woy ci arab Kaab waykat la woon dund ci jaahiliya ci ceddo waaye du fekk lislaam tuub daan woy sax ay woy yoo xam ne sax jiit muy tuub daan daan daan ngaañ lislaam ak di tëkk yonent bi ak di ko ngaañ yonent bi tëkk ko ne fu ñu ko fekk nañ ko rey ndax ndax ndax ndax euh, maanaam sharia maye na ku ngaañ yonent bi ku nekk ñu neenal sa deret mooy di daganal sa deret duñ la fekk rek yonent bi la fu ñu ko fekk nañ ko rey Kaab mu daal di tiit daal di daw ñëw fekkee saa sama Madina bi mu ñëwee def na ak ak ak ak maanaam xasida bu bu yéeme bu neex baal la soxalu bu ñëwee fekkee saa sama tool mu daal mu daal mu daal gi dem moom mooy ci ci ci ci nga xam ne moo gën a maîtriser làkk arab ci arab yëpp xam secret xam xóot-xóot yi xam yëpp bi mu déggee bi mu déggee mooy xasida gi xasida gi neex lool ak tàgg bi ñu tàgg mu mel ne fàtte na lépp lu mu lu mu ko mos a di ñaaw am am na am na ñu doon wax day wax ne أدبرت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول بما رفنا كد يمس ما نلقي على ما تكو تكو لما نكو ما ثم تك المرأة تبا خم لك يا الله تكلو تجيكو يبا أجمع الجيجر أجمع ماني تبوني يجمع ويك بو لوك توي توي توي بو بيجيكو بيجيكو يمس يترى هذا الجيجر كتكار الجيجر ولا تكو لا لا تكو هني كتوره مرال تكو سكس سكس يجوا يجوا ت ci maanaam raay yi bi kaabun wa xasaan kooku sax la jëkkal kaabun wa xasaan wala boo say de xat baraaw xat baraaw la wax ne dañoo dañoo ràññeeku dañoo raw ci wàllu way wa kulluhum sha'ru nuurun wa asraar kenn ku ne ci ñoom ay wayam leer la te mbër la kooku mooy kaab xasaan bi koo xam ne moom itam da daan woyoon saa sallam daan défendre l'islam nga xam ne moom bu yéefari masaara wax ci islam lu ñaaw day jóg def ay xasida di ko défendre Anas ibn Malik doon woykat waaye ku daan liggéey yonent bi la ay aajoy këram daan ànd ak moom di wéet ak ay ay satalaam di ko waaye loolu lépp nag def na ko fukki at ne tàggawut ak moom ba booy dem ci xadis sax dañuy wax léegi Anas ibn Malik xaadimu rasulillah dañ koy wax Anas bi nga xam ne moo nekkoon liggéeykat yonent yàlla bi nag ci njëlbeen bi boobu ba béy boobu mu tudd lekk am na ne kuy liggéey yonent sallallahu alayhi wasallam te am na dugg ak sell bu ràññee ne bu lekkaan ne da ngay gis muy mébét di ñaan أنس أك حسان وجعل مقامي مقام المرتضى أنس في خدمة وكحسان أزل حرم ما لنا يا الله جمعي ممن لي حسان أنس كيف يجي المصطفى وقال له لا لما تبقى كتاب لور بس ما نقول لك شنو كان يعني تبقى رايت سيدي سيدي خلق كان منو كودا كان منو سيدي وقال لك أنا لك نقول كبار من رايانا في خدمة دي موي فاستير دي أكيد تبقى كاري ak waxtu nekk ba ngay séntu la la la nga xam ne moo gën a kawe saa bu amee lu baax rek xeeb na lu baax la mi ngi daal àgg ci la gën a kawe lu baax la ba am li mu am. bu ma ko waxee bu ko defee suñu daal koy nangul ñaan bi waaye li ma ko ñaan daf ko nag aw yoon la woo xam ne dañ cee war a jaar te sori na mu jaar ci yoon la di liggéey nag continuer di liggéey daal doom ci la jaayante mu jéem ba suñu borom jox ko digal mu dugg ci géej bi muy dem ci géej gi itam boobu mi ngi yóbbaale maqaamul xaadim boobu waaye nag yitte ju kawe ji tax na ba ci biir gaal gi mu ne di dem ci la ko sallallahu alayhi wa sallam xamal su doon sax moo ko xamal ne ko weesu na léegi xaadim yaa ngi ci xadim te wax ne xaadim ak xadim bokk xaadim tolluwaay la xadim nag mooy bi gën a kawe xadim mooy ki nga xam ne day liggéey yonent bi ci léppam ci xolam ci xalimaam ci cëram ci xalaatam di ko liggéey ci àddina ak ci àllaaxira xadim rasulillah moom rek moo ko mas am rek gi des ñëpp xaadim rek lañ amoon من عمل من الرحمن تستفيد بان لي حد يزيد لك بمدى ما يبكي بعد شيء جديد لك لدي خدمه بابا لدي علم لك تقول لك كتاب وانت اي نفس ياتي من النفس اجلو يفتك الجلو يا خم لي بنات يوم انت مومن كو سن بروم نك جيل غراد بابا كخم لي مودون ليغي رسول الله صلى الله عليه وسلم دي كاري جوك كو نك مودال واخ نك ملك العلي الباقي القديم جعلني اسنا قديم نور يالله ميغا خا دا موي كي تاريخ يا كي لو دو دو موك moo ma def ma ma nekk liggéeykatu Moustapha bi gën a kawe liggéeykat ci la waxe waxal ci studio bi ne man zanna annahu yakunu abada yurdihi billadi ka xidmati bada nafaytu zannahu bi anni alxadim bima wana an mislihi kullu ku koo xam ne yaakaar ne man ngaa liggéeyal Moustapha ci nu mel ne ni ma ko liggéeyee ci liggéey bu kawee noonu liggéey bu selle noonu liggéey bu dëggoo noonu dàq naa si ndax maa ngi koy liggéeyal ba faw ci anam koo xam ko ku dul man lott nga ci liggéey bi mel noonu loolu ba mu koy wax boobu ci sant yàlla la ak ak taj rasulullah ak ak ak ak feeñal xéewalu yàlla def moo tax daan wax ne kon kaaba ba ma doon ñaan mel ne moom xastaab ba ma doon ñaan mel ne moom anas ba ma doon ñaan mel ne moom yàlla defal na ma ma weesu leen raditu an albaqi wa an xayri xalqihi wa fi madaxihi jaawastu kaaba wa xasaana ci tagg Moustapha dinaa ba dépassé ba dépassé kaaba ak xasaan daal waxaat ci anas itam ne barra ani kuduus min kulli danas wa inda xayril xalqi jaawastu anas yàlla mi nga xam ne moo set wécc te taxul dara setal na ma ci lépp luy tilim tilim bi rek ci te weesu naa anas ibnu maalik fa rasulullah sallallahu alayhi wasallam ci liggéeyam kon loolu pastif la ak dox la te loolu kat boo ko seetee diir bu gàtt la waaye nag yàlla moo ko taxañal yoon bi taxañal ko dox kon lii tam ci biir jaay ci biir liggéey boobu ci lañ tàbbi ndax liggéey bi ñuy liggéey Sëñ Tuubaa di bàyyi suñu liggéey bu dimanche bi tey ñu ñëw daje daayira wax nga ko léegi lu am solo ndax temps bi ñuy jël di ko jox sëñ Tuubaa sëñ bee baax rek ak it yërmaane suñu borom waaye la jaar woon mooy suñuy xëy suñuy ngont ak suñuy maanaam njàq ak suñuy rañaan ak yépp jox ko sëñ Tuubaa loolu mooy jaay tey kon lépp luñ ci def di ko ko jox yërmaane ak baaxam rek tax waaye lépp luñ ko war a kon nag nañ ko gën a fonk bu baax fonk ko ci kaw gën a booloo am benn benn ndax sëñ bi loolu ñoroon na ko lool ndax liggéey bi lu mu rëy suñu ànd booloo nekk benn nañ ko bëgg a defee dëkk dëkk duñ ko di mën te booloo boobu damay wax ne waaw li ci li ci li ci nekk ci njariñ ñu ko xamoon te xam nañ ko sax danañ ko fonk ndax xoolal fi ne jamono ji fi mu toll ñuy wax crise di wax ay jafe-jafe kenn ku nekk la nga mën a mën a dóor xaaj ba mën a dóor te taxul kat yéen a waroon wàcc la li nga waroon def fii sa njaboot mu lay war ba tey la nga war a def ci Sénégal mu lay war ba tey waaye loolu lépp bu fekkonte ne teeloon nañoo waajal suñu bopp ci mbooloo mi dëgg la sax ñu ngi ci rek waaye bu fekkonte ne gënoon nañoo waajal suñu bopp ci mbooloo nekk dem jëwrin yi jiitu ñu nekk ci kanam ni ko waxee léegi ñu jiital leen dafay jëlee Pakistan xam naa loolu seen seen bi daf ñëw ñi ñi war a topp sa ginnaaw topp ci ñu sellal liggéey bi ngir yàlla teg ngir jëmi seen tubaab te jël daraja ak àddina ak intérêt teg ko fee parce que lu yàqu loolu ko yàq damay wax ne seen seen bàkki bàkki moom tax daa wax ne ñaar ñu ànd ne dañuy liggéey yàlla di wut yàlla bu ñëwee ba mu yàgg xuloo am ci seen biir ak xeex nañ xoolaat seen bopp am na ci koo xam ne dina ndax bu yàlla rek taxee xuloo du am xeex du am dëgg la ay xalaat mënta ñàkk wut ixtilaafu rëy ak ak ak ixtilaafu fi rëy laa yufsidu lil wut ñi xawul yàlla arab yo dañ ne ay nit bu ñu àndee faw ay xal ay gisin yu wute am kii gisee kii gisee waaye nag bu yàlla taxee ak sëriñ tubaab rek faw gis-gis yi dañuy xool yi ci am njëriñ te ñaata ñu am jege yoo xam ne ñëpp mën nañ caa def pour ñu ñëpp wala da ëpp mën nañ caa def pour ñu ñëpp ko ci ko defee jël installé ak ak ak dara yi ndax dara ja mooy lan mooy bëgg àddina mooy bëgg njiit mooy bëgg discipline mooy bëgg waxtu nekk fay ci kaw nekk si la scène te loolu baax na ci kaw bu dee àddina kese la waaye loo xam ne liggéey jàll la rek loolu mën na caa nekk ba liggéey li liggéey Sëñ Tuubaa dafa dafa gaaw a te gaaw a am boo ci nekkee bu yàggee tuuti da ngay gis maanaam xéewal bunt yi ah, bu fekkee nag dangaa ben ba la yow sëñ ba la nga gis gisatoo mbooloo ko la ma mën a jiitaloon xeer gisatoo leen wa illaa am na leneen la tax a jóg lu bokkul ak liggéey sëñ da ngay daal di fàtte sëriñ bi fàtte intérêt boobu mu jiital sa intérêt boobu xam nga xam nga léegi bu ñu waxtaan ma ne suñu waa dafa ne jamono bay ànd ak nit yow mëri na nga ko tànn te bàyyi xel ñaar ñi ñaar ñi moom koo ci gis bul ànd ak moom ci gis tam wala gis ci kenn ba gisee ñaari nit maanaam koo xam ne dafa melowoo ñaari melo yi bàyyi ko bu ci melowoo benn melo yi bàyyi ko te seet keneen waxtabir rijaala qabla suxba wala tusaaxib xumran aw zaaraxba nee na ki nga xam ne zaaraxba la zaaraxba mooy nitub intérêt koo xam ne xam nga suñu taal doon wax ne koo gis ci àddina muy dox murid la daal ne milku wa milku milku ma riidu dunyee wa milku ma riidu aaxira te li nga wax léegi ci muridu maanaam circonstance wala muridu bis noonu itam kooku toujours foo ko fekk muridu tudd yàlla doonte dañ tuddoo muridu àxira ndax nit ki mën na demal muridu al àxira la maanaam taalibu Sëñ Tuubaa la Sëñ Tuubaa rek ma jot waaye fekk na ma ngay am lu muy làmboo ci boo bu fekkee ay waxam dafa ay ay jëfam da di weddi du joxe addiye wala boog du léew du teew ci la ñuy teew murid yi du teew dara du siyaare baax ñuy siyaare du diglu ndigal du ko laaj Sëñ Tuubaa kooku am lu ñu waxoon ne kooku ñu ci kenn mën na ko ñeent ñi waxoon ne ñooñu ànd ak moom ki ànd ak moom di jaamu yàlla di ko liggéey ki ànd ak moom di ko liggéey jaamu yàlla ki ànd ak moom di jaamu yàlla di liggéeyal ko mooy ci ma wax léegi doote da ngay jaamu yàlla ci ci ci pour xam ne waaye nag benn murid la waaye doo ko gis dañuy murid wala lu ay gis lay lay ñëw ay circonstance lay ñëw ñi muy siyaare dafay xool ñoo ko neex ñu siyaare leen xëy na bu ak sëriñ ñu ñëwee daal wala ku ko sax mbaa ko neex ñu siyaare ñi ngi des moom gën a ñëw ci kooku muridul dëgg la bu ne muridul aaxira la itam xëy na du cent pour cent wala sax du sax vingt pour cent lu bare bari manqué na ko kooku muridul a muridul bi yàlla gën a jege ci muridul aaxira te ñaar ñi rek fi nekk da ngay bëgg yàlla rek di wut yàlla ci ku ne sëñ Tuubaa nee na soo dee wut yàlla ci ku ne ak ci fu ne ak ci lu ne doo am lu may yàlla xëy gis ne la maa ngi nii dégg nga la maa ngi nii loolu mooy lan mooy bul xeeb kenn bul xeeb kenn bul xeeb benn bis bul xeebal kenn lennam ndax suñu na kat dafa denc ñett ci ñett si daanaka ko wax ngërëmam ci topp yàlla la ko def bul xeeb genn topp yàlla am meram ci mooy yàlla la ko def bul xeeb euh, li nga xam ne itam moo di ab secret xaritoom ak wilaayam ci jaam yi la ko def te dañu ñii di teew nii am na fi ñoo xam ne fi ne ay nit yàlla ñoo xam ne kenn xamul leen am na ñoo xam ne fii ñoom mag ngaa nekk sax nit yàlla sax doo te doo ko xam nit dana doon wàllu ba faatu ba dem ci bàmmeel am fa ñetti fan xam ne wàllu xoolal loolu sëñ bi wax ci misaal yi koo xam ne day jëf jëfi daw tey wali yu day jëf jëfi daw wax wala li lañ la takk leen istiqaama kon yàlla kon nag fexe ba bokk ci muridul aaxira soo mënta nekk 100 pour cent yi dañ ko doon bokk 50 pour cent wala di góorgóorlu nag ndànk ndànk nag ba kaw ngay mën a ñëw loolu kon mooy gën a góorgóorlu ci booloo bi gën a góorgóorlu ci liggéey bi te teg ak daraja ak xëccoo yiite yooyu yëpp teg ko fee waaye ñi nga xam ne itam ñoom lañ ñoom lañ jiite itam te ñu seet keneen doy ñu jiite ko itam ñu bañ a fakkastal jiite ndax jiite itam suñ maamor Mbacke loolu faral loolu suñ mënulaa ne du ak fal waaye aw sas sas yi mooy lan mooy doy loo nañ ndax ki ki jiital ci yoon bi benn kenn du ko jiital di xam-xam bu ëpp leen ñëpp ndax dama waxee rek mën naa ci mbooloo bi bu ko xam-xam du jiitu bu bu bu ëpp leen ñëpp du ko yaayee du wërsëg maanaam ñu toppale waaye yàlla mooy def ci nit lool maanaam profil njiit suñu borom ko def ci nit mu am te ñu tànn ko ci loola kooka nag fexe ba ndax njiit mën ci ñàkk nag ci lu mën a doon salaa salaam ne même même ñett bu ñu àndee di tukki sax nañu wut gën jiite ñett bu ñu àndee sax tukki nañu wut gën jiite bu ko defee njiit loolu nag bu ñu ko wutee ba pare nag tànn ko ci loo xam ne ñëpp ci maas yi ànd nañ koy jàppale ci ni di ko di ko xelal moom it muy diisoo la ndax diisoo itam bokk na li nga xam ne mooy doxal mbooloo mi te mooy tax itam kumpa ndax bari na ñun lu ñuy daal ci suñu biir ñuy daal ko mooy ñàkk waxtaan ak ak ak nëbboo waaye su fekkee kenn ku nekk la nga xalaat mu la amal njëriñ mbooloo mi doo ko nëbb doo bàyyi bu génn di ko jëyee mbooloo ma da nga koy wax ci biir mbooloo mi teel la tax mbooloo mi itam déglu la bu dee problème la yoo xam ne yi seet la doon problème ñu xool yan solution lañ koy mën a amal bu fekkee lu ñu war a taxawal ay kër sëñ tubaa ñu koy bëgg ñu ngi bëgg ay ñu ngi am ay naal tubaab yoo xam ne sëñ ko ci cadre mbooloo lañ koy a defee ak njiit lu mat jiit loolu la faw ko diisoo ca te gën caa bàyyi xel la ci sëñ Tuubaa digle sëñ moom daawul def a sax bi sax xëy na dëgg la baax na waaye la mooy ka ko mate dëgg-dëgg ca ragal yàlla la ca maamu la ca jikko ju jikko moom laan moom laan seen daan wax diw bii ku ko yar waaye daal wax ku ko jur ku ko yar yor kon yar boobu mooy li am solo ñu bàyyi ko xel xam ne suñu tubaab li ñu digal mooy booloo ak ànd nekk benn ak jàppalante ndax booloo bu xasee am rek wax ak sama Abdoulaye jooju bu xasee am rek jàppalante day daal di yomb rawatina ci jamono joo xam ne jamono yu métti la jamono yu jafe la waaye loolu lépp itam bu ñu nekkee benn nekk benn bopp di dimbalante suñu biir kenn ku ne la nga mën a sa morom ci wax di tey rek sax nga defal ko ko ci defal ko ndax def def léeg-léeg gis koo xam ne du nekk problème bi jàpp na ko ba sax mën na ko sax ci yeneen dañ jël lu mu war a jël wala muy naan lu mu a naan wala muy log lu mu war a log te yooyu yëpp bu nekkoon Sénégal xëy na wala bu nekkoon jàmm ci liggéey ci maanaam tranquillité du ko def waaye jur ci tam nag dafa war di bàyyi xel ngëmam xam ne gëm yàlla mooy gànnaay bu mu ñàkk mukk wala mu am jafe-jafe mukk wala mu dugg ci ay problème wala muy crise mukk ba tax mu ne naa def jaay mu war a wala naa naan mu war a naan ndax bu daf war a dellusiwaat xelam xam ne lu dul yàlla rek loolu am solo te yàlla rek dekkaale du jeex Sëñ Tuubaa dafa ne ajru lazi maa indahu laa yanfadu wasala ni wa maa baaw yàlla nga xam ne lu muy joxe du jeex tuyaaba du jeex tuyaaba du jeex maanaam may googee jox na ma ko mën Sëñ Tuubaa kon li may jeex xam nga démb rek maa ngi wax bis yi toll muy bisi Arafat yeeg bisi bët fan yi ci jëkk ci selo sey yooyu waaye li Sëñ Tuubaa wax fii xasida yi nekk sama tànk maanaam loolu daal la loolu rek ci képp koo xam ne am na Sëriñ Tuubaa nga xam ne yow lépp lu nit di wuti màgg wala mu koy wuti mooy li ci faatoo àll ci koo xam ne dangaa gis di gàddaay ngir yàlla kon kenn ku ne ci yéen dafa ñëwee xam naa nag doy waar ñu ne gaa mu ne ndax jullit bi saa mu faatoo àll suñu borom day wax malaaka yi naar yi ne fii mu faatu dëkk bi mu faatoo ak réew moom gisaanoo nañ ko ko nattal nu mu toll moo xam kilomètre moo xam mètre moo xam lu mën a doon ñu wutal ko lu toll noonu ci àjjana xam nga loolu kon loolu lépp ci ki nga xam ne dafa gàddaay te jiital yàlla ak yonent bi mooy am doom andi jot muy lii def nii gànnaay lu weer ndax sëñ Tuubaa li muy waxtaan sax bañ na ko ba tukki géej gi sax léeg-léeg sax mu tuddee ko alhijra ndax jox na ko tur yu bari gànnaay muy immigration wax na ko hajartu min duuni ya wal bunyaani li xidmati muxtaar bi jiyaan la gànnaay naa jóge samay réew samay kër ak samay tabax ngir liggéeyal Moustapha sallallahu alayhi wa sallam al muxtaar léeg-léeg mu tuddee ko assayir muy ab dox wala boo comme comme assir yu bari wala masir ba tey muy dox léeg-léeg léeg-léeg léeg-léeg mu tuddee ko al ghayba ak fard da leen tuddee ko ak safar ak tukki ci boppam te tukki rek tukki nii rek nga xam ne moom tuddu kii la kon yooyu yëpp li li muy tegtale mooy fonkoon na ko te joxoon na ko àqam waaye li ñuy wax it ne moom itam ku gàddaay la woon doon dafa gàddaay jëm ci yàlla kon ñii itam dañoo gàddaay jëm ci ci am réew lañ ne ci ay tubaab lañ ne li ñu si diine sant muy bëggante muy jàppante muy wóolante waaye fexe ba jikko ju rafet ji ñu Sëriñ Tuubaa daan digal te daan di soññee itam jikko jooju itam te mooy bu ñu tooñ moo xam suñu mbokk jullit la moo xam suñu mbokk nasaraan la ndax nasaraan yi faaw ñu jaxasoo ñu ndax ñu leen teg waaye yi ñu jaxasoo ñoom itam na nekk darura Sëñ Tuubaa dafa xam ci xasida day boobu mu doon bi ak murid bi ni mu war a jaxasoo ku dul jullit incha ne ki dul jullit da su fekkee darura la manqué ba yóbbu la ci di jaxasoo luy dara darura mooy contrainte ñun ñii ku sañoon doo def ci tubaab yi yaa ngi sëm réew am say xéewal di am sa lépp di am sa teraanga waaye comme jamono jax na la ba nga am teraanga ba nga bëgg teraanga yaakaar ko war a wutee ba am yoo xam ne encore na ci barsa mbaa barsa sax xewoon na de waaye loolu lépp ñàkk xam rek xëy na ak xëy na ak xëy na am rek da nga teraanga ñooy texe ñu ñëw fii kon faaw jaxasoo bu mënta ñàkk li ñuy wax intégration intégration boobu nag bu ñëwee bu bu bu su mënta ñàkk nañ fexe ba rek ba teg ko ci ni ko l'islam bëgg maa ngi wax si daawaka ma am solo ci discours bi njëkk a def wala bi bi nga ne a bi njëkk a fekkee bi mu nekkee xale bu wax ak maanaam ak ak ak dégg maanaam gouvernement bi mu ne yéen jullit ñi da ngeen daal yi maa ngi leen dénk ngeen jàmm yàlla sax ci te mooy jàmm yàlla ci sunna te ñii nga xam ne ay état bi waa gouvernement bi ñoo leen jaboote lépp luñ bëgg ci yéen sàkku ci yéen bu ko seen diine terewul na ngeen ci ànd ak ñoom loolu wax na xam ne ñu bari jàngee la kon képp koo xam ne yaa ngi di ko dund te mënoo fay ñàkk am nekk waaw day faral di am teraanga fexeel ba di jaxasoo ñoom di jaxasoo boo xam ne sa diine du ko ñaawlu sa diine du ko ayibal te mooy soo waree jàng làkk ba dégg ko ndax làkk mooy caabi intégration ci bare bare ñàkk dégg làkk dana andi bare bare ci ay jafe-jafe sallallahu alayhi wa sallam nee na man taallama lugata qawmin amina koo xam ne dégg nga làkku xeet bu mën a doon mucc nga ci seen pexe ak seen jëw mm. mënatu laa jëw mënatu laa pexe ci làkk rek soo xasee dégg làkk ko nag dugg nga def intégration intégration bu bi am solo mooy nga fexe ba yow sa lu baax li nga indaale woon bul ko jël mukk di ko sayal ci seen aada ak seen culture bi nga xam ne yàlla gën a ko waaye ñoom it ñàkk ñàkkut yuy baax la ak ak yuy rafet la nga jël sa yu rafet yooyu ak seen yu yu baax yu rafet yooyu boole ko nag ngeen ànd dund ci jàmm ngay dund sa diine di dund seen diine ngay dund sa aada ñoom itam di dund seen aada ak seen culture su ko defee loolu nag ñoom ñu ngi ciy gën a soññi bu baax baax te te jamono laaj la ko da parce que immigration choisir li ko daan wax ñoom waaye bu nga xam ne fi nekk ni moom mooy li nga xam ne mooy li gën a am solo ci jamono ji mooy la formation te jàng dégg làkk bi fexe mën a am ci liggéey yi ndax nit ay doomu aadama dong lañ xam-xam dong la ñuy jàng te nit ñi kenn ku ci ñun bi ngay ñëw fii même boo déggul espagnol déggoo dégg nga maanaam catalan catalan bi ñu waxee seen laaj bi déggoo français déggoo anglais waajal nañ la ci bagage jàngale la alquran nga jàngale as arab tuuti wala nga jàngale as dégg nga français def nañ ci yow as ak ak tarbiya bagage yi ñu indaale boo ñëwee loo góorgóorlu tuuti rek da nga daal di mën am ñoom li ñu am ba noppi dañ am lu ñu am su ko defee dund expérience bi loolu ci am solo la comme nañ ko bàyyi xel baax ci gën a booloo nekk benn te dina te moytu yu bare bare xam ne ñu xeexal tubaab yi xeexal dégg maanaam police yeeg yëpp ku ne xam na ne xëy na am na lu ko waral waaye lépp rek ñu xam ne bokkul ci suñuy aada bokkul suñuy jug rawatina taalibe sëñ Tuubaa moom kenn digalu ko muy muy tooñ kenn digalu ko sax muy fay tooñ sëñ Tuubaa daa wax ne bi ma mosee ñu tooñ ma ma jéggale damaa noppal ndax yàlla damay fay ba noppi fayu damay fay ba noppi fayu danaa ne kuy tooñ rek doo mucc te kuy fayu du ñoom kon mooy du tooñ mooy di am solo waaye bañ a fay itam nag ndax bu fekkee doo fay rek te rek ci lay tooñ ngay ngay muñ bu yàggee day day day bàyyi il fax la di yaa askan la wax alxames bu ñu bu la lu bon delloo ko lu gën bu yàggee rek noonu dem di nekk ak xaritoo kon daal bëgguma guddal maa ngi leen di delloo bu baax te di leen doon ñaanal di sàkku ci ñaan te di wax rek ne eh, bëgg na bu baax a baax gisee yëpp ak dégg nga daje na waxtaan wi. Eh, mënoon naa gën a yaatu loolu mënoon naa gën a xóotal waaye maa ngi ciy jégalu sëñ euh, Ousmane ñëwee mu manqué woon dara bu mottali lu ci ñaari dina ko rafetal ngeen jégal bi daal xam ne rek euh, ay taalibe lañ dañu bëgg euh, li liggéeyal Sëñ Tuubaa ngeen ñaan itam liggéey boobu Sëñ Tuubaa jàppale ci te ñu daje ci ngërëm moom dañu am lu ñëpp te liggéey bi ngeen def yàlla nangu ko Sëñ Tuubaa nangu ko ñi fi nekk di te liggéey xëy na am ay wala tey ñu jafe-jafe ngeen yàlla yàlla yombal te génne ko ci jàmm barke Sëriñ Tuubaa ñi eh, nga xam ne it xëy na amuñu liggéey yàlla yàlla su borom yombalal na liggéey te liggéey bi nekk liggéey boo xam ne bu barke lay doon ñu ko amee yàlla barke seen liggéey te defal leen ci tawfiq ak taysiir ba ba ñu bëgg a àgg àgg ba ñu te nag eh, bàyyi nag bi ndax tey nag am ñu fi nekk liggéey Sëriñ aw day am moom gi tam ñu gën leen a formé di leen di ci kër Sëriñ Tuubaa ay ay borom xam-xam ay jaay di leen jàngal diine di leen nàmpal lislaam suñu bokki nasaraan yi nga xam ne dañoo tuub itam tuub boobu ñuy tuub itam dëgg am solo lu rëy la waaye cat li am toujours rek te peut-être danaa ko wax mooy ñàkk suivi yi mooy ñu bari bu tuubee dañu leen di bàyyi seetaan leen rek wala dañu war a taxaw dañu leen dañu leen taxaw kon dañu leen taxaw taxaw bi ñu ngi yow li nga xam ne yàlla dogal na euh, seenu tuub jaar ci moo xam koo tuubal la da nga ko muy sa soxna wala sa mbokk mu sa keneen dëkk noonu moo tuubal muy te di ko wan exemple ni jullit war a mel ni taalibe war a mel di ko xamal diine di ko xam ne nekk lislaam taaru lislaam ndax ñoom bañu lislaam dañu ko ëppale rek lislaam kenn du ko bañ ku xam secret yi ñu amee dañ dowaale ma doo ko bañ bu di ko a xamee lislaam bi a ñëw bañ leen maanaam nationalisme di leen di leen seere ak leen dégg nga botti ak leen wan ne bokkuñu ak yéen bàyyi nañ ñëpp ñu teg si rek li gën a am ji daal nañ ko rafetal xam ne sa rafetal di gën a rafetal suñu digganteeg ñoom dañ leen a wan exemple bu baax di leen jàngal diine di leen jàngal ak taalibe bu ko defee ñoom danañ mën a dem ba indi te loolu nag mooy mission bi la a islam kat amoon na fii ci Espagne doole doo lool di doon ñett téeméeri ak yoo xam ne am na ko te ñu ko gën di woon ñii ay commerçant lañ woon ñii di ay concurrent yoo xam ne dañoo fexe rek ba ba ba ñëw fi ñu ngi des nekkoon ay tukkikat kon ay immigré kon nañ xam ne mission tasaare islam itam ñu ngi suñu loos te loolu li ci gën am solo mooy comportement bi comportement bi mooy jikko ji kenn ku ne mooy jaxasoo moom bi jaxasoo moom ci jikko ju rafet jikko ju rafet suñu tubaab dara wax ci ci ci nax bi ne kenn ku ne na nga fexe ba da ngay àndal nga ànd ak moom na nga bëgg mu ànd ko yow sëriñ Saalum bu ñu fàttali ko waxtaan bi mu ci ak correct correct bokk la ñu wax bali atabir min nafsika al aadama wala tutaaliban bihi asxaaba ci naaj la waxtu nekk na ngay seet yow di xool sa bopp na nga war a mel la war a mel ci yow ci ay teggin ci jikko ju rafet di ko bàyyi xel di ko corriger tey bañ a xool la nga xam nekk sa morom di xool ay sikka di xool ay ayib maanaam daal ngay jël say devoir ba mu mat soo laaj say devoir ne moom lañ say devoir keneen kon ñooy sant bu baax tey gërëm tey jégalu wa aaxiru da'waanaa alhamdulillahi rabbil aalamiin wassalaamu aleykum wa jébbal kàddu gi suñu Ousmane mu àggale soññee bi lu ci dañu dëggoo rek sëñ bi li ñu ko tudd woon ci xaw a lënd mi ñu layal ko rek bismillah wax su keneen ne seytaane si la man la xanaa kay man fi ñu toll dama laa war a bàyyi lu léegi xam naa amatuma lu ma wax ndax comme que ñu ngi tëgg yëpp benn bu ci nekk mat na te neex maanaam bala maa dañ ma jox nangam wala foofu du ma fa dem ndax ñëwuñu dara moom bokkul ci façon yooyu te loolu dafa bari loolu ci ak jàngkat yi da ngay nangoo jàng te nit ñi ci bu fekkee da ngay jàng ak xasida te yow da koy wàññi ne na koo xam balaa tudd yow kon jërul bi ci xoolal ci bari te yooyu yàq na jàngkat yi waxtaankat yi mooy ñu ci xoolee mbooloo ni ñu yor comme wala daayira bi xumb wala yooyu mënoo leen a wax moom nag bokkul ci ñoom ñetti fan a ngi mu nar a dem man téye ko ne ko doo dem te xaaral ndax li ngay wax dafa am njariñ donte ñaari nit a fi nekk mu toog àndaale te waxtaanam bu ngeen xoolee xamut nit ñu bare ñu tuuti kon ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm man nag amatuma sax lu ma ciy dolli li ma ciy wax daal mooy waa daayira bi ñu ci nekk dañoo war a am ko te jël seen i matuwaay ndax da ngeen di gis ci dëkk bi ñoo xam ne dañ naan murit lañ wala ci yàlla te duñ teew ci daayira murit duñ teew ci daayira ci yàlla te yow mi dem daayira bu boo leen rombee ku jëm fenn la te ñooñu ku ci dee yéen a dajale xaalis yóbbu ko Sénégal kon nag kooku wóor naa yem ki nga xam ne bu day comme Sénégal bu ñu tuddee kuy dem daayira ku dem daayira kuy sabooti daayira koo xam ne jàppiwu daayira bi dara ku ci dee fu mu mën a doon ci Europe waa daayira bi ñoo dajale ñu ko yóbbu kon kooku bu dee nital yow mi ci bokk war nga xam ne kii wóor naa yem ku fi dee daayira bi la jàppale ba tàyyi amul kenn benn association wala kenn ku mës a dimbali ku faatu ku faatu ku mën a doon ak foo mën a faatu daayira yi ñooy dajale rek ki nga xam ne boo dee boo dee waa daayira ñoo lay dajale kon bi ngay bi nga déegul war nga am gor bu toll nii fonk daayira moo def ci daal maa ngi mën a fa nga bokk war boobu moom te nit du foy du gëm lu li nga gëm wala ko foy tubaab yi boo gisee ñu raw yooyu rek la ñu raw mooy nañu gëm duñ ko foy duñ ko caaxaan da ngay gis xale yu góor yoo xam ne tubaab yi nañuy topp bëgg moom nga def ci tubaab kenn bëgg àndal ak ñoom xale nga mën ngaa ànd ak tubaab yi fu ñuy dugg dugg fa lu ñu def def ko lu nekkal ak ñoom say morom nag waaye daa am loo xam ne nag mooy la nga yore woon Sénégal la di juddoo ñu nàmpatal la ci nga indaale ko ci loolu fexe nga dundal ci mooy nuyu lay sëy ci kese bu baax suñuy laaj na nga def suñu laajee na nga joxe soo amatul nga ñëw kër ba ñuy santaane ab liggéey ñu tëb waaye ñu toll Europe li fi xew danay waar ndax fi ñu toll nii tey da ngay gis ñu bari da nga fay dem fa nekk bu daayira jotee que lañ koy seen bu génnee buñ ko neexee fekk ak seen jàng daayira bi tax am na dëkk bu ma jógee du ma tudd tur boo demee ko sëñ Tuubaa dafa nekk médiatisé nañ ko ba Sénégal ñëpp xam ko fa laa jógee kër ga dañ ko defar ba mu ne booy néeg yàgg bu sëriñ si kenn ku ne mën nga am sa néeg te doo jotee sa morom dara waaye kuy toog bu nekk ko kuy nettoyé kër gi nekk ko kuy tëdd mokka ji nekk ko dara lu café gañ fay teg sëñ bu ñëw seggal sa bopp naan te loolu amul solo bi nga demee ba defar kër sëñ Tuubaa da ci dalal ay sëñ Tuubaa yi ak gan yi war naa mën fexe ba yéen waa daara ngeen di ko bañ a def dafa am sëriñ bu ma fekk fii dikk dugg ci kër gi dama ah fii mooy kër sëriñ Tuubaa bi ma ne leen waaw fii ngeen gis leen sëñ Xaadim nii fa la ma ne leen fii ngeen mu nekk benn ne ñu teg matelas yi ñu tëdd ñu mel ne nekk ci doom lay daara yàlla xam na ne baneen kër sëñ Tuubaa ñu ma jógee kër sëñ Tuubaa bu rafet dama jógee fii ma ko dàq ndax boo fekk ko ñu yëngal la su añ jotee ñu yëngal la ko bu reer jotee ñu yëngal la doo ko su fa événement donc loolu amul njëriñ kon yéen seen kër gii di kër Sëñ Tuubaa daanaka sax man ngeen a wut ko gën a yaatu bu leen nekkee waaye jëru koy daanaka lépp ngi ñun ñi fi nekk jaar sant Mbàkke wax dëgg yàlla suñu xol sax ndax dara man boobu xam nga dal fenn suñu la yëgee lu foofu mel a mel mel pale te kenn fépp la bu kenn kon nag loolu laa bëgg ngeen am ci bu baax a baax nit boo bokkee dara loolee da nga koy respecté te doo ko kafe yéen xale yu góor yi nga xam ne yéen a membre daayira bi di fi teew waru leen a nangu jenn jëmm ji taxaw fii ci daayira dafa dem naka su dul noonu mbaa mu di ko def kooku jëwriñ ji mën ta xeex mën ta xuloo yéen yéen ko war a bañ jëwriñ ji daa jiitu nag waaye li ñuy bañ ci kër yi ak li ñuy bañee ci caaxaane liñ doon loolu moom kenn mënu ko nangu ci su nit taxawoon fële tey saaga jëwriñ ji mbaa mu wax ko luñ ko toog ñun ñii ñoo war a jóg faj bu toogee ba jëwriñ jóg di ko fajal boppam sa ko ci xorom yéen yéen war a jóg faj ndax jawriñ ji liggéey leen jox ko du sëñ Tuubaa du fay ka leen di fay ma nga ca Sénégal mooy sëñ Tuubaa kon nag am na loo xam ne jawriñ ji mënu daa am loo xam ne nag yéen a koy fajal seen bopp mooy waru leen a nangu ku ñëw fii di fi indi benn amendement wala mu fi indi yenn tànki caaxaan wala mu ñëw fii indi benn wax dëgg jawriñ ji su ngeen toogoon fii nga ko xoolee ko lu mu xoolee yéen a toog fal moo ñu àndal nit ki nag boo ko falee ba pare da ngay dugg jikkoy Sénégal moom la jox mooy jikkoy Sénégal Sénégal tubaab dañuy toog toog ci taalal danañ fa jiw kookee lu mu wax ñëpp def su wootee ñëpp dañuy dem ba def ni sax dañ ko ragal def rëgaluñ rëgaluñ ko dañuy xool maanaam la leen boole man daxi ma leen boole la ñu xool nit ku mun na xamul toog dalay fal dala yaa fi nekk ba pare wëlbati xolam tàngaat ci yow du bëgg nga jiitu kon kay bañ a fal ak dugal te loolu mooy loolu mooy li waat yàlla bu ñu waxee dara dañ koy respecté ñu nag lu ñu wax jëm nañ suñ nee diw nangam nii mooy jëw diw moom nga su waxee kenn fa bu wootee kenn du ñëw su ne def leen nangam kenn ku ne na gënuma loo ko doon fa defal loo ko doon fa def ñëpp am nañu sëriñ waaye buñu sa amee nag mat bu toll nag def ci ko sëriñ Tuubaa sos nañ jiital kookee it nag nañ koy respecté bu dëgg dëgg ak lu mu mën a mel ak mu mën a mel te yii ma la ñu bari na ci Europe lu mu gàllankoor waaye nit ni ñu ci yeewu bu baax a baax a baax li ci yeewu baax ma bëgg yéen tam ngeen yeewu ci loolu bu leen kafe daayoo jëwriñ ñi fi nekk respecté leen leen gënuñu leen yoruñu seen wërsëg yéen a bokk benn passeport bu sëñ Tuubaa buy may di jox jëw ñu na ko joxal lu jox Ousmane Mbacke ñu jox ko ñu jox ñu jox la sëñ Tuubaa ñëwal boppam fayal leen boppam directement waaye règlement bi ñu tëral ni muy entre ñun suñu bopp règlement boobu nañ ko respecté alquran sax sëñ bu saa ñu lu leen dox arrahmanu xalamal alquran xalaxal insaana allamahul bayaan as-samsu wal qamar yàlla ne na jant jeeg weer bi bi musbani dañ leen teg ci yoon wan nañ Moussa jeeg isbiraan bi diwee garab bi dañuy si jóg wasama rafaha wa wadaal misaaq mu nekk asamaan si mu tiimale ba mu dëgg hmm. allah teg xaw fil misaan mu nekk oh, maanaam wa sama rafaha wa daal misaan mu mu mu tiimale ñu asamaan si teg ci ay mandax mu ne allah teg xaw fil misaan mu leen ëppal ci mandax yooyu maanaam droit yooyu na ngeen ko respecté wax kii moom wasa bil xëy na ngeen taxaw ci di ko respecté hmm. wala teg suroo misaan te bu leen ko wàcc hmm. kon noonu mooy ci tubaab bi da ngay gis nag buñ tegee benn société ka ko jiite soo ñëwee daanaka sax lu bari da ngay dem ci société tubaab yi yeeg yi association yi ka ko gën a woyof boobu ka ko jiite boo ko rombee sax mën nga ko xeeb fekk lu wax ñëpp def ñun Sénégal nag kañ yi fal mooy koo xam ne tëguñu fenn koo xam ne tëgul nit ñi fenn damay gis dayo yi bari jëw ñu du teg nit ñi fenn ci sëriñ sa fenn faalewul kenn da leen di ko ñu complexe ko fal dara du fa baax luñ dajale mu nekk luñ def mu bu weesee ko duñu mën loolu nag complexe dugg nañu kon nag bu ñu amee nag daayira yi nga xamante ne ñoom dañoo toog fal njiit njiit lañu doxal normal kookee nañ ko dégg ndax jëwriñ moom boo demee ba ci tool yi sëñ bi dafa am tool man mii boo demee sama tool yi Sénégal dongo yi ñu ci bari sax xamuñu ko jëwriñ bi rek laay wax mu def dongo yi bari ka sama tool yi seeni tur jàpp moom ñu bari ñu bari xale yi jàpp mu seeni damay woo jëwriñ bi na ko def leen nangam ak nangam naam ren bi sax moom fuñu nawet dafa ma oo ma ne ko bàyyi ngeen ren mu ne ma waaw ba ma ma ma ko laajee fu ngeen nawet dama wax dëkk ba ñaar xaw ma sax tur dëkk te lépp ngay dox normal parce que dañoo respecté doxuñ ko kon am leen fulla bu leen jàpp rek ne jëwriñ mooy jëwriñ déedéet yéen ñëpp kenn ku ne da ngay jàpp ne jëwriñ bi ci daayira muy mbooloo moo xam ne tey jii que leen di saboté di leen naññe di wax lu ne ci daayira bi bu faatoo fii lañ koy dajal yóbbu kon bu leen nangu ñoon ñëpp façon yooyu nga xamante ne gëmuñu dara ñëw nañ ci Europe bi ceeb bu dijji beeg lamp yi jàpp leen bañ fàtt lañ doono ñoom foo leen fekk musiba yi balaa yëpp seen kaw la jëg ñoo ñu rek ñoo fi toog foo leen fekk ñëw Europe lamp yi jàpp la ak ceeb bu gudd bee foo leen fekk nag dañuy yomb ràññee bu fekkee ba muy judd ci teraanga lu ko fëkk day yomb nit ki bu fekkee ba muy judd ci teraanga lu ko fëkk day yomb waaye ci teraanga ci xam lan mooy teraanga fekk ko mën a dem dara du ko yóbbu waaye ki nga xam ne dafa judd ci ak ndóol ay mbokkam yoruñu woon dara nga xamante ne li ko indi Espagne bi sax par chance la boo xam ne mënoon na ko bañ am kooku bu ñëwee lu ko këpp day yomb ñooñu nag ñoom ban te koo ci wax donc nag yéen ñi nga xam ne yéen am fidélité am ñoom daal yéen moom fu la ji téye bu leen kafe yi ngeen yor bu leen ko caaxaan Sénégal génn dëkk sax léegi bu njëkk da nga daan gis boo jógee Italie boo ñëwee takk ay ceeb or wala nga sol ay tubay diir ñu ne ñu naw léegi dugg na Sénégal léegi ki ñu naw mooy ki ki ñu Espagne nekk mbaa Europe la nekk ñu laaj ñu ne jàmbaar la ci taalibe bi foofu mu dëkk di jàmbaar la foofu la ñu naw waaye Sénégal bi boo ko ñëwee léegi ñu yëg ne boo ko ci daal di foofu daal dañuy xeex am na sama mbir soxna bi ngi takk jabar Sénégal Italie la bi ñëwee bëgg ndaw si waa kër gi dañ doon def nii waaye ba mu ñëwee xamal ne ni kii jàmbaar la ci daayoo ca ña ko seere daayoo ba la bokk waajur ndaw si ku góor gi daf ko woon ne ko léegi kat ñun xamal nañ ne fa nga def jiw lañ def li nga bëgg ñu jeex waaw ah, parce que kenn dugg léegi kenn kon bu leen xool ne jaww ji rek mooy sëñ bi du sëñ bi du leneen gënu leen waaye nag li ñu respecté nañ ko kii damaa bëgg ngeen bokk ci daayira yi nga xam ne Europe lépp dañ koy respecté teg ko ci yoon lépp di dox ci yoon lépp di transparence lépp di dox parce que a te fi mu toll wax jafe na ndax xalifa général bi ñu am doole dara ci soo demee tey kër Sëñ Touba yàlla ko ñu bari ñu ko sonn am na liggéey bu rëy bi ñu waaj a sonn boo xam ne buñ ko médiatiser ñëpp ko yëg waaw ndax jamono bi aéroport Touba rek taxaw nañ ci dem ak yeneen ak yeneen kooku nag boo ko bëggee jàppale ca la mu nekk da ngay nangoo génne saw ñax neen di ko dajal di ko yóbbu mu dugg fu leen nañ loolu na mbooloo moo ko mën waaye sos mbooloo nekk di biir saa waay lii daa defe ne moom moom nit ñeeg gënu ñoo fii yi jaar boo ñëwee fekk nit ñi toog nga di leen di jaay fit bu rëy lu nekk déedéet fit bu rëy am na feneen fu ñu ko war a mën a jaayee fu dul fii fii laaj nit yooyu fii xam nga fi woote mooy yiw ak dégg bi dal ak yar sa bopp ba ne nem te buñ la laajee mooy la la lii lañ sax soxlawuñ ci leneen parce que leneen soxlawuñ waaw yonent bi dama toog saaba yi di waxtaan ak ñoom nii waxtu tàkkusaan jaayante dafa yàgg am ñu ngi waxtaan ak ñoom ba mu yàgg arab yi daal di koy te daal di nañ nañ nañ nañ ko nañ ko cokaas mooy yéefar yi yéeg ñoom bi ñu dikkee woo genn góor bu tudd Omar ibn Saxaar nga xam ne yéef arab yëpp moo ci man yéefar yi woo ko waxtu tàkk sànd woon jox ko rek mu naan ba man de neexal ko xaalis ne ko demal cokaas yeneen ci leen waxtaan ak sahaba mu war fas mu ñuy kub ak àndal àngaloo mel ne bayaan yi ci ci noonu ñëw ko jàkkaarloo yonente bi boo ci jas bi daal ne ko Mohamed yonente bi bi xool ko mu ne ko du yéen a nekk day ci yéen dem àjjana yonent bi nag waaw mu ko ku dee ci ñun yëfari dem sawar yonent bi nag waaw mu ko na kenn jóg fanaan àjjana mbaa ma fanaan sawar saaba yi jël yëfar yëpp jigéen ñi yëfar jéeg jigéenu nasaraan yëpp ci makk ko tàgg mu war fas bi nah, di bagg rëmputal fas bi ba jàkkaarloo ak yonent bi ne ko xanaa du ngeen góor na kenn jóg fanaan ma sawar ñëpp na jël mu fas lu na ba dawal ko ba dugg ci seen daw mu ne ko xanaa jëlawul du ay bu yéene ne àjjana daa nekk kenn ci yéen jóg fanaani ko sawara daa naqari ma ma fanaani ko yéefar yi tàccoo màkk gépp di tàcc bi mu rëpp talaat fas ko lu angal ba dawal ba jubaat si naa li ne bëri yonent bi Ali toogal fii Omar da lay rey boobu góor bi ñeent ci la lu giru arab yëpp yëpp moo ci man moo ci toll mu rëpp talaat fas ba tànk fas bi bëgg laal kaala yonent bi mu ne ko xanaa ma xam du sawara